ci les victimes. Je seeni t ñu mun see gis photo wu Fulbert Sambou ñoom ñu lay bokkoon moom demandoo armée ci atum 1998 ñoom nag ñu daldi jóg ngir rekk yoon daldi def liggéeyam ngir ñu xam ana lu nekk ci ginnaaw génnub àdduna Fulbert Sambou. li ñu wax ci Fulbert benn ñun gëmuñu ko ndax. corps bu def cinq jours ci ndox le 18 ba le 23 ñu ni mënuñu ko autopsie man ci taatu ndox laa dëkk. corps boo repêché jël ko yóbbu ko ba yóbbu ko morgue kon corps boobu waroon nañ ko mën a autopsie bu fekkoon ni koor bi am na décomposition avancée comme nit ñu ko waxee kon on devait l'enterrer sur place à la place. Fulbert Samb. daal di réer fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre bi weesu ci anam yu doy waar njiit yu fi nekkoon xamle woon ni dafa daal di lab gannaaw bu mu demee napp ji géej li ni mel nag ñoom ñile dañ ko daal di ba mu set wicc. Didier était gendarme des sous-officiers de l'armée sénégalaise ñu ne dañ leen boole ci amnistie ils étaient pas des hommes politiques kon bu ñu demee ba di leen boole amnistie kon yaa crime yaa crime looy amnistie c'est parce dafa am crime. kon ñoom ñoo rey Fulbert Sambou kon moo tax ñu bëgg ko amnistie jamono ji nag seen bëgg-bëgg mooy njiitu yu bees yi daal di jël mbir mii fexe rek ba yoon daal di def liggéeyam. pourquoi ils n'ont pas exposé le corps de Fulbert à sa famille à ses amis donc y a quelque chose euh, loo xamante ni waxuñu ñu ko te ñun loolu lañu bëgg ñu leeralal ñu ko mu leer suñuy bët. mu nekkoon invité wu MNF. Ismaïla Madior Fall jotoon la xamle ni génnub àdduna Didier ji ak Fulbert samb dafa daal di bokk rek si loi d'amnistie bi nga xamante ni ni dañ ko daal di voté loole nag daal di woon jur coow bu bëree bari tax na mu génnaat di leeral ni li ni mel dafa doon njuumte.